billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ñu dellu siwaat seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fi ci sunu site bi ñuy wax ak actu ñu nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla defal leen jàmm te defal nu ko di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm di siyaar baax di ñaanal soxna maam xari mbàkke murtada di ñaan yàlla defal ko fan wu gudd ak wér di ñaanal soxna moomi kebe mu alxaaji jili mbay yàlla sàmm ko ko Euh, di siyaare mbokk yëpp bàyyiwun kenn ak fu nu waaye mën a toppee rek ñu ngi lay siyaare tey ñu dellusiwaat ci jataay bi fas yéene waxtaan ak lu gàtt gàtt loo xamante ni dana amal ite muy wàllu daayira daayira nag suñ ko tuddee yoonu murit daf ci am responsabilité bu rëy rëy boo xamante ni gis nañ ne daayira yi macha allah bare na fi lool ci nosin ak organisation bi ak daayira bu njëkk ak léegi loolu la ñuy rek gis ne daayira wax nañ ne ñaar ñi ci Sénégal xañ na ñoom la ñuy wax na ko fi njëkk a taxawal muy Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak euh, sëñ Babacar Sy wax na ne ñoom ñoo ko njëkk a taxawal ci réew mi ci li nu gëstu sunu gëstu bu néew waaye li ci am mooy daayira jàpp nañ ne li taxoon ñu taxawal ko bu njëkk mooy cosaanam mi ngi doonoon ci toolu àllarba àllarba yoo xamante ni. waa dëkk bi walla waa gox ba dañ ko daan daje di ko demal ci tool sëñ bi yàlla dogal sëñ bi toolam nekkoon ci côté yooyu wala fenn wala waa dëkk ba wut tool boo xamante ni seen toolu bopp la ñu ne dañ koy defal sëriñ bi bu ñu demee ba bay ko ba mu ñor ba génn asaka ja la ca des ñu jox ko sëriñ bi loolu moo doonoon toolu àllarba toppatoo daal di tàmbalee ci daayira bi ñu ba jamono ñu réformé waat ko ci wane ne dëkki àll yi dañoo war a jàng jàng gi ñu war a jàng nag mooy seen doom yi te xañ na jàng mi jotewut ci dëkki taax yi ak bu dee ci wàllu arab gis na ne xañ na dëkki arab dëkki àll yi amul woon loolu ñu fexe ba sëñ Seex Gaynde Fatma mi ak ñeneen ñu mel ni moom Seex Mamadul Murta fexe ba école yooyu dugg ci biir àll bi ñu ne comme daayira yi am na fi nag léegi daayira bi li muy def mooy na am responsabilité di fayal kiy jàngale mu leen di fay bu ko defee ñoom waa dëkk bi bépp dajaloo seeni doom ubbi benn école ñuy dajale la amakas néew di ko fayee jàngalekat bi mag ñi nga xam ne dañoo toll ci jàng te ñoom it seen jàng xañ na wees na ñu fexe ñoom it ñuy jàngaale ci école bi kooko di leen jàngal bu ko defee dëkk bi daal di tàmbalee yeewu sëriñ bi dongo yi nga xam ne dañu ko daan jël di ko jox léegi au lieu muy jëlati léegi dong yi waaye ci biir dëkk bi léegi xale yi am na fu mu fa jàng yoo xam seen waajur a nga fa te teewul seen waajur siyaara bi mu daan ñëw ak addiya bi mu daan ŋàbb lu ci bari day wàññeeku léegi ndax ginnaaw sëriñ bi da ko yoraloon njabootam yoral ko ay doomam yooyu yëpp mu daan jël di yóbbu léegi xañ na li muy conditionné ci addiya ak di ko yóbbu xam naa bañatee bari léegi nag bu ko defee ñu boole nag di eh, sëriñ bi waru gar woowu ko waroon yu ci bari wàcc ko foofu te teewul la mu yéene woon ci njaboot gu ñoom ñëpp dana am loolu bokk na ci si bokk na ci ñoom it ñu bennoo mooy daayira ñu bennoo waa dëkk bi ñoom ñëpp ñu bennoo nekk benn seeni xol tàppee ànd euh, bokk na ci oxytube bi tamit mooy bu nu dajalee dara gis ne am na ku ko soxla ci njabootu sëriñ bi lott na te sëriñ bi moo ci waroon a taxaw ñu jël lanu yoroon ñu daal di koy jàppale kooku ci feebar walla ci xat-xatu jamono walla ci jamonoy xat-xat ba dem ba këram taxaw wala mu am ay xat-xat ñu daal koy bokk na ci dina tax ñoom seen ak jege ci seen loo xamante ni dana jege te intérêt bi benn intérêt rek ndax ginnaaw ñoom ñëpp ñoo bokk fu nu jëm bokk koo xamante ni mooy seen sëriñ ñu ne kon nan bokk mébét bokk xalaat lu jógeeti ci sëriñ bi ñoom ñëpp kenn rek jottali leen ko bu ko defee am na bis yu nuy daje ak waxtu yu ñuy daje <coughs> ñoo ngi jégalu loolu bu ko defee loolu bokk na ci daayira bokk ci li nga xam ne tamit day tax nit ñi nekk benn nit ñi tamit di xam bu ko defee la gën a doon dëgg-dëgg daayira mooy ñu jàngale seeni farata yoon wi nga xam ne mooy tarixe bi nu bokk tamit ñu xamaale tarixe bu baax xam lan la borom tarixe bëggoon ci lan la nekkoon ba ñoom ñëpp ñu mën a dem doon dem bara représenté sëriñ bi fenn ñoom ñëpp ñu ko. koo ci taseel boo ko laajee lan mooy tarixa bi lan moo nekk ci yoon wi lan mooy seen yoon nga mu mën koo leeral ndax fekk na ci daayira bi loola dinañ ci waxtaan loolu mooy jubug sëriñ bi biñ demee nag ba daayira ñu yëg ne tool àllarba yi léegi nit ñi bayetu nu mbay mi demeetul noonu ñi tukki nan ñii ñu ngi ci marché yi di kii ñu nekkoon kon léegi murid yi tamit am seen xër fu ñu dem ba daje fa ba mat fa ñaar wala ñett ñu taxawal fa daayira ñoom it toolu àllarba boobu ñu amoon ñu daal di mujj retourné ko def ko noonu di ko di ko di ca teg bu nu demee ba dajale ba at mi kii ñu ñëw jox ko sëriñ bi sëriñ bi seet fum ko dugal ginnaaw seen addiyee la jun waroon di siyaare waxtu wu nekk waaye ñoom ñëpp ñu dajaloo ñëw loola doon organisation am solo ñoom ñu koy taxawal it am seen unification seen xalaatu bopp taxawal ko bu dikkee ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi jox leen aw tur ñaare néew lool ci turu daayira yu murit yi buñ dikkee ci turu xasida yi rek la ñuy delluwaat jox leen ñu ci bari jamonoy sëñ Abdou Lahat ku nekk xam na ne tur yu bari ci turu xasida yi la leen di tudde ba ci sëñ Saaliw ñu fi nekk ñëpp turu xasida yi daanaka lañ leen di tuddewaat ndax gis nañ ne li ci amaat mooy <clears throat> daayira yooyu dinañ gis ne dina am ñaari dayre yoo xamante ni wala lu mat téeméeri daayira yoo xam wenn tur la ñuy am ndax tey sëñ bi day tuddee ki tey matlabul foo sëy ni keneen ñëwaat mu tuddee ko wala keneen ñëw mu tuddee ko jawharu nafis wala dara yooyu yëpp ay tur la yoo xam ne day màndargal dayre bi ne nangam ñoom ñu ngi kii bu ko defee nag loolu moo doon pas-pasu daayira eh, benn xalaat bi nu ci am te liñ ci wax suñ xalaatu bopp la mooy gis na ne daayira mi ngi désormé meew mi ngi dem ci noo xam ne kenn xamatut fu ñu ko tënkoon ak fan la yeewu woon te mbooloo yu bari yuy jóg di former ay daayira te li nekk ci daayira kenn xamut war nañ leen a tënk ci genn buum ba buum googu duñ ko génn waaye boo seetloo léegi daayira fi ñu toll kenn xamut fan la tàmbalee kenn xamut fan la yem xamuñu sax lan moo ko tax a jóg bu ko defee léegi nit ñi tàmbali ñuy am ay daayira yi fu nekk rek ñu wut fa daayira bu jëm si ci sëriñ bi bu ko defee sëriñ bi tamit ñoom ñoo ñu seen bopp ñooy tànnal seen bopp njiit buñ dikkee ci sëriñ bi wan ko tànn nañ kii mooy sunu njiit sëriñ bi wan ne leen kon ànd na ci ndax ginnaaw yéen yéen a tànn seen njiit bu ko defee soññu leen ñu gën a góorgóorlu ci seen wàllu diine jàpp seen njàmbur fonk seen liggéey bonk na ci dénkaane yoo xamante ni sëriñ bi def leen koy dénk ku nu mën a dimbali tamit mu wax leen na ngeen ko dimbali lépp lu ngeen yëg ne bëgg-bëgg la ak ci kii bi tamit ndigal lu ñëw ñu jox ko jëwrin ji mu jottali ko waa daayira ba wa daayira bi jëf ko bu fekkee sëñ bi da am lu muy laaj wala lu muy liggéeylu wala lu soxla ñoom def ko ñoom it daayira yi dina am seen xalaatu bopp yenn saa yi bu ñuy siyaaree li nuy am mooy euh, jël seen xaalis dajale ko indi jox sëriñ bi am ñoo xam dañuy jënd nangam ak nangam sëñ bi war naa soxla lii wala nangam yooyu yëpp ñu def ko mu doon ay xalaat yoo xamante ni ñàkk tënku gi waral na ko am ñoo xam ne seen i daayira lan cay def danañ dem ba wutal daayira bi récépissé loolu nag kenn xamu ko woon ci cosaanul daayira ndax yàlla ngay liggéeyal kuy liggéeyal yàlla jërul ñu xam fan la dugg jërul ñu xami tamit lan mooy ak mu jëm ëllëg wala dara fi nga toll daal te war cee liggéeyal yàlla liggéeyal ci ña ca war agsi bu nu agsee tamit sof ca war caa dem ñu war cee yar seen ak njaboot yi tamit yar seen jigéen yar seen nangam. waaye bu ñu seetloo ne daayira yi léegi jàngale moomu nu ci gënoon ubbi nit ñi xam ci seen diine dafa mel ni léegi da gis ku jiite daayira wala ku ci nekk di ngar-ngari def nangam di sonn te du xam dara ci yoon wi du xam dara ci wàllu diineem góor ñi jigéen ñi tamit jaxasoo bi jéggi day lool ci wàllu woowu te loolu ku ne xam na ne la góor bëgg la jigéen bëgg te daayira buñ ko seetluwaatee rek mooy kuréelu lislaam kuréel bu juddu ci biir lislaam la di dox doxinu lislaam di liggéey lislaam doon liggéey loolu islaam bañ rek ci biir organisation am daayira daf ko war a bañ ci biir ni mu ci wàllu jigéen ñi beru jigéen ñi xam seen diine jigéen ñi xam nangam ndaw ñu ñu yar leen ci yarab lislaam ak yarub diine mooy lool waaye gis na ne daayira yi léegi li ci am mooy daanaka ay ñaari nit ñetti nit ñooy nekk ci bopp ba buñ ca nekkee tamit pour nga folli leen wala ñu jëg ne mënatunoo doxal yëf yi ndax daayira buy tàmbali njëlbeen gu lu ndaw lay doon day dem ba àgg ci àggin woo xam ne nag ka ko jiite woon xañ na xam-xam ya taxoon ñu war koo jiite moom amu ko waaye la def moom du nangoo bàyyi mukk day wane ne moo war a jiite ndax moom moo sosoon daayira bi ci loxoom la soso dëgg la waaye ginnaaw da ngeen bëgg a dem ci yoonu yàlla rek ku la ëpp xam gën laa mën a jiite euh, moom moo war a jiite ñu dem ba gis ne daayira day jël ay nit jël ko sars di fay ñooña nekk ci activité yoo xamante ni activité daayira bi lay doon yoo xamante ni daayira bi moom moo koy doxal te daayira noo jàppoon ci sunu xalaatu bopp mooy daayira bi warul am benn bëgg-bëgg warul am lu muy organiser warul am lu muy taxawal moom lim mu ko war mooy dajale lu mu yóbbu ci sëñ ba ak lu jëm ci nit ñi sëñ bi nag ginnaaw da ngay jël sa addiya di ko yóbbu yow waroo tànn ne lii laa war a jox sëñ bi wala nangam xaalis ngeen dajale yóbbul xaalis ngeen jox ko bu fekkee da ngeen a dajale keccax i tamit am ko wala sëñ bi yëg na sëñ bi dafa soxla keccax te a jóge ci sëñ bi ngeen yóbbul ko sëñ bi waaye léegi bu ñu seetloo dangay gis daayira boo xamante ni day dajale un million ci masala ne léegi day siyaare trois cent mille wala cinq mille bi bu ko defee cinq cent mille bi ci des mu ne da ciy ay jàng wala ak cant bu ko defee yóbbu lenn la la ca des mu téye ko buy dem luye ay kaaram luye nangam dikk bu dikkee ci sëriñ bi sëriñ bi dina ko toggal añ ah dana ko wutal ay ndox yu sedd ak yooyu yëpp mën na ko fa wutal bu ko defee lam ca doon joxe lu ci bare bari dana wàññeekuwaat yendu fa ba ngoon mu soog a dem. dëgg la mbooloo mi àndandoo ñëw ci sëñ bi kenn du ko bañ waaye bu nu seetee ne fere yi mën naa bari ak la yóbbu joxoon ñaari nit wala ñett nit ñu indil leen ko. sëriñ bi xam ne seen ab liggéey ñëw na te du te yàlla xam na ko yonent bi xam ko sëriñ bi xam ko waaye mbooloo mi ñuy ñëwandoo dikk bu ko defee yendu fa sëriñ ba berndeel leen lan fa doon siyaare wala di ko jébbale lu tol noonu wala lu ko ëpp sëriñ bi jox leen ko loolu day mel ni kon yow li nga doon def uh, ak li nga indi day mel ni gañewoo ci lu bari uh, te lu mu gën a nëbboo nag taxaw tiim sëriñ bi daayira sàngam indi na nangam joxe na nangam wax ko ci kaw sëñ bi lii lan dajale. loolu moom mel na ni tamit li gënoon a wu fexe ba mu suturlawul moo gënoon ñu koy kii am na ñoom da koy bind sax ci seen i kii xañ na tawut mbooloo mi nag war nga leen a leeral ne leen nangam lan am nangam ñi ngi koy jébbale ñu xam ko loolu sax boo gisee sëñ Ablaat moo ci ubbi woon fenêtre mooy def mbooloo mu dikk sëñ Ablaat wan la ne la sëñ Ablaat wax ne bind daayira sàngam jóge dëkk sangam indi nañ fi nangam loola bu ñu demee ñu tàll ndax bu du woon lool tamit lépp sëñ Blaat da leen a bëgg a dimbali ak leeral gu muy leeral mooy euh, ki joxe woon ndax xaalis ba agsi na ci sëriñ bi mooy wane na loolu lan joxoon sëñ bi agsi na bu fekkee ñetti nit a ko joxe woon wala mbooloo mi indi nañ ko ci ambaloog def ko bu ko defee sëñ ba dana ko teppi xam ñaata la ñu bind leetar wane na nangam agsi na fi loolu it lu leer la waaye amaana <coughs> mbooloo mi tamit nga nekk ci bopp bi rek ne doo bàyyi ñaata daayira ñoo fi tas yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. te la ko waral mooy ña nekk ci biir ñooy doxale seeni doxaliinu bopp ah ña jiitu ñooy def nangam ñooy laaj ñooy seet nu ñuy organiser ñooy seet nangam ab daayira jàpp ma ne war naa am ay récépissé mel ni ab kuréel la yor wala wala nu mu tuddati benn moment bu mu yor boo xamante ni day wane ne nangam ndax tey li koy wane mooy tey daayira bi bu tuddee Matlabul Fawzayni ëllëg ku bëgg a tuddati Matlabul Fawzayni wala mu bëgg a tudd nangam boo demee dañ lay wax ne la. ah daayira bi kat lii kat tur wi kat ñëw na fi mu ñenn ñoo ko moom te tur woowu sëñ bi mën na koo tudde téeméeri daayira wala ñaari téeméeri daayira kon loolu day wane ne kenn warul dem loo ndax yow moomoo loolu patrimoine yoonu murid la moomoo ko te loolu boo seetloo fi ñu toll sëñ Maam Mor Mourtala mi leeral na ko bi muy tuddee université Xaadim Rasoul université bi dafa dem jëndiwaat ko ci ay nit ndax ñoom tur woowu ñoo ko moomoon ba def ko seen récépissé léegi loola patrimoine bu ñëpp bokk ay mbooloo mu ndaw dem jël ko Euh, jënd ko loolu kon day wane ne ñoom euh, loolu euh, ñi ngi tooñ moo tax tur yooyu ci baree bari ay murit loo xam ne yoonu murit nga tuddee sa mbopp murit yi wala nga tudde Touba nangam wala nangam te loolu patrimoine bi moo ko moom ñoom ñoo ko soxla kenn waru koo tudd rawatina ngay dem nag di ko defal ay récépissé yoo xamante ni bu ko yoon wi soxlaa ñoom ñi ko moom yow fekk ne benn kuréel su ndaw moo ko jël loolu lu jara moytu bokk na ci tamit mooy ñi jiite. doo ci mën a kenn du ci mën a kii du leeral duñ leeral mbooloo mi xaalis bi ak li ñuy def te mbooloo mi jàpp naa ne ñoom amuñu woon benn objectif bu dut lu nu dajale rek indil sëriñ bi xam sëriñ bi fan la porosem toll yow yaa ngi dem jënd ay oto indil ko sëriñ bi fekk na sëriñ bi mu ngi tàmbale nangam ci masala tey mun Muntaxa tàmbali université bi léegi université bi muy def boobu moo itteel yow indil xaalis jox sëñ bi waaye bul ne sëñ bi war naa soxla lii nga indil ko loo xam fekk na soxla wu ko woon am na leneen lu mu gën a soxla kon indilal sëriñ bi xaalis bi rek moom mu xam lu muy def waaye na sëñ bi lii laa koy jëndal nangam wala lii lañ war a def wala yow daayira bi nga jël sa engagement ne nangam kon day mel ni tënkuwoo ci yow ci mbiru sëriñ bi da tënku ci sa xalaatu bopp di ko doxal donte lu baax la bu dee lu baax it ginnaaw kii moom mooy yore yofi moom moo war a am ay procès moo wara na defal leen ma nangam bu nee daayira bi liggéeyal leen ma nangam daayira bi mën a dem liggéeyal ko nangam waaye daayira bi warut am xalaatu boppam rek boo xam ne dikk rek ne procès daayira bi tamit warut nekk daayira boo xam ne dañuy jël di ci fay ay nit ay nit ñu ko yoreen ginnaaw xaalis la ñuy dajale ak jàngale donte xañ na bu ñu fekkee ubbi nañ ay école yoo xamante ni dañuy jàngale diine xaj na teewut daayira bi noonu la cosaanoo woon waaye jël ko kenn xamul loo xamante ni nangam ngay jël ay récépissé ah di ci wut loolu loolu kenn xamul lu doon ci wàllu daayira beneen bi ci des tamit mooy cant yi ni am boo xoolee safar yi di ñëw ci màggal gi daayira yi yëpp yi waroon a jébbali yëpp seen xaalis <coughs> mën na ni li ëpp lépp dañ koy dajale def ko ay ñam togg ko def ay jàng luye ay baas lekk xaalis ba mu jeex bu nu amoon 3 millions 2 millions yi ci xeetu bernda lañ koy def ay lekk ay nangam sëñ bi yor procès yu toll nii rawatina ko mel ni sëñ Muntaxa projet yu toll nii yow nga amoo benn xalaat lu dul da ngay def rek di lekk màggal yi niy woote yi tamit yooyu yëpp boo xoolee jamonoy sëñ Fàllu bi mu amee projet jumaa ji ñu ci bari daf leen a wax seen màggal yi ngeen def arrêté leen am na ci seen màggal ci la doxe sax ba euh, amatut amatut ndax boobu sëñ Fall dana wax taluma dara lu dul màggal lu dul jumaa ji yow nga tal ay cant ak euh, ay bernde yooyu def yoo xam ne da nga koy lekk màggal yooyu ngay def sax la ci gën a nekk mooy yow da ngay wut di ko tuddee ay autorités yoo xam ne seen yoon nekku ci ñan ñi sax mën na noo a bokk ci yoonu murit ñenn ñi ñoo xam ne loola bañ na nga tudd ko bind ay leetar loolu kenn xamul lu mu doon loolu li muy def bokk na ci li yóbbu daayira boo ko wutalee récépissé mooy ëllëg kenn du ko mën a nangu te jàpp nañ lu jëm ci yàlla sax jëru ko sax ak it manifestation gu ëpp gi nga xam ne am na ci daayira mooy ñun ñoo def lii ñoo liggéey lii wala nangam nit ñi ngay laaj tamit bu leen forcer ci laaj ndax ku ci nekk ci lam man la war a def lam war a def bu ñu demee ba mbooloo mi yëg ne danoo war a génne kenn tamit yow nga ne duma ma génn loolu du yoon mbooloo mi suñ demee ba bëggatul laa jiital bëgg jiital ku la gën a jub wala ku la ko gën a man da ngaa war a nangu Seydina Abubakar yonante bi mu ko jiitalee ci benn xare benn aay alxuraan wàcc yonent bi ne saxaaba boobu demal Aboubacar nga wax ko ne ko aaye sàngam wàcc na bi ko Seydina Aboubacar téenee mu ñëw dane ko ndax yow danga ngaa bëgg a ñëw jiitenu wala da ngaa bëgg ñëw topp ci sunu ginnaaw mu ne ko damay topp ci seen ginnaaw nga xam ne moom bu ne woon dama lay jiitee tamit amu ci benn bañ-bañ waaye fii moom ku xas ba jiite day mel ni yaa ko moom lu la neex ngay doxale ci daayira bi lu la ngay doxale ci alalu daayira bi lu la nekk te fekk moomoo ko sëriñ bi moo ko moom ñu tànn kenn jiital la moo tax bu ñu ci masee am problème ku mel ni sëñ Saaliw ñaar daayira bu ñu masaana xuloo du leen lijjanti mukk da leen di wax dem leen nu ngeen mën a defaroo rek ngeen defaroo ñaata daayira ñoo fi tas fi ñu toll benn daayira bu am doole bu xamante ni da ngay wan ne nangam la daanaka bariwul ndax ñu jiite ay at rek bu ñu doxee nga gis loo xamante ni ayib lay doon wala ña jiite mbir dem te ginnaaw daayira bi yow li nga ciy def mooy euh, war ngaa sombi loo xamante ni tamit moo tax yow waroo am benn procès procès sëñ bi rek ci nga war ndax boo nee nit ñi da nga leen di laaj nit ñoo xam mën naa xëy tey mu bàyyi bu subaa du man wala manoon na tey bu subaa du man kon yow <clears throat> amoo procès sëñ bi moo am procès sëñ bi tax sëñ bi tamit forcé wul kenn lu waaye man yow yaat formé sa daayira sax waaw yow yaa formé sa daayira dem taxawal ko sëñ bi yëgu ci dara kon nag bu ko defee lii ay eh, joyante yu nu gis ci daayira yi la yoo xamante ni teewul nag lu baax la waaye nag nanu laabalaat suñu xol xam ne yàlla la ñuy liggéey pouvoir ma jiiteeg maa jiiteeg jiiteewu ma loolu waru ci am nit ki daa war a yëg ne sëñ Touba lay liggéeyal sëñ bi muy liggéeyal am na fay li nga joxe doon te dafa jàdd am feneen fu mu dem xamal ne loolu pertoo ko sëñ bi dina la ko fay. ndax yow da ngaa joxe woon ngir yàlla keneen ku mën a jàdd jàddaan ci yow waaye daayira boobu dañ koo jël teg ko sées Euh, di ci yóbbu dugal ci port bi ak génne di ci dugal yeneen bagage yoo xam ne sax <coughs> bokkul woon ci bokk du bagage yi daayira bi waaye autorisation yu la may nga mën a jël yeneen i bagage di ko dugal loolu kenn xamul lu mu doon ñaata daayira ñoo fi patas ñaata daayira ñoo fi amoon mbooloo loolu lépp day wane ne rek cosaan li ak dox te yoonu yàlla ndax mbir moom mënut dox ci yoonu yàlla ba noppi di rësaat loola mooy la ca biir kon xool leen seen bopp maanaam mbir mu jëm ci yàlla dox ba ci yàgg mu taxaw mooy yàlla am na leneen lu ca waaye bu dee yàlla dong day avancé waaye du avancé ñaata daayira nag ñoo fi laltu ginnaaw yoo xamante ni doxatunu amatunu mooy amatunu nangam ña ko yore woon ñenn ñi bàyyi nan ndax parce que lu tax ñu bàyyi mooy kenn nekk ci bopp ne man lii ko moom sama maam intérêt yu bari mën a dikk ci moom di ñëw ci moom ak yooyu yii daal jar na seetaat bu baax a baax. Euh, ñu ngi sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp liñ ci bëggoon a wax sax gàttaay bi moo tax waaye dinañ ci dellusiwaat incha allah rabbi lii nag nañ cee bokk am ci xalaat di ci wax sunu xalaatu bopp suñu ñunu ñoon la nag ndax daayira yi moom taalibe yi ñoo koy taxawal waaye gis na ne ci taalibe yi am na ci loolu xamante ni daayira yi dematu daayira bu ci dox tuuti ñu dégg ko mu jóg ca kaw ñaari fan ñett mu daal di kiyaat loola nag li ko war mooy ñu vérifier suñu bopp mooy ku jëm ci yàlla di dox ba ci yàgg nga taxaw mooy yaa war a vérifier sa bopp waaye yoonu yàlla wi moom yoon wu jubla woo xamante ni ku ca taxaw doo jàdd doo jàdd ci mbooy gi doo jàdd ci ñàll wi moom ci yoon wi ngay jub siraatal mustaqim la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp yàlla nañu yàlla defal tawfeex seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi ak Serigne Fallou soxna Awa njaay moo doon réaliser émission bi soxna Khady Niang moo ko doon monté wasalaamaaleykum wa rahmatullah murtajan minnatun lana jariun